Mam Diarra Fam pour 3 minutes suivi de Ndeye Fatou Guissé. Euh, monsieur le ministre président de m'avoir la parole monsieur le ministre maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur Samba si ministre du travail monsieur le ministre jël sa nuyoo njaboot yëpp teg ko ci loxo màgget ñaa le directeur général du budget dugal ci jigéen ñi ak góor ñi lay accompagner jël xale yi ñoom Moustapha Ba ñoom LMD dugal laale leen ci monsieur le ministre di nuy sama sëriñ di ko ziar Cheikh Abdoulaye Lahat saar mi ngi sa ginnaaw maa ngi ziar sama doom Bale Pereira di nuyu famille finance yëpp directeur des douanes mi ngi ci DOP op monsieur mbay ñoo ngi ziar ñëpp monsieur le ministre. monsieur le ministre vous ministre. Je me rappelle, une fois, je vais prendre mes collègues en témoin, avec l'échappée d'une vidéo donc vous expliquez les choses de, de la finance. danga ko wër danga ko wër ni jindil leen ma vidéo bi indi leen ko ñu indi ko c'était à sali nga éliminer vidéo bi xam nga loolu lan la woon pour nëbb say compétence pour être sous la tutelle de ton ministre que je me rappelle cette journée j'ai dit c'est un homme humble monsieur le ministre loolu mooy tekki loo doonul taalibeem doo doon sëriñam Ablaye li moo taxul la dendee kii ci jaxaw monsieur le ministre ma gis ni fu ñu fu ñu jaaxlee ba ñëw taxaw rek leeralal nga ñu ba suñu bopp yi léeg-léeg ma ni eh, kii Saliou est-ce que kii moom bariwul wax rek wala lii dafa bugg ñëw woon ni jàng na xam na numéro yi kii moom dafay wax rek de donc nit noonu lay def ñun ay mag neexuñoo jàngal ñun ay mag lañu ay mag boo leen di jàngal da ngay jël sa temps yëpp di leen ko expliquer bañ comprendre ko ci loolu nga nekk monsieur le ministre vous donnez un bon monsieur le ministre les dépenses communes ma jàpp ni Sénégal wax nañ ko ba pare naa ko leeral man xalaatuma sama privilège waaye man damay bañ inégalité la voiture des députés pour man sama bataille la bul delloo benn xaalis bi comme li la Diallo wax xaalis bi dolli ko ci jëndal ñu ay oto wax ko président ne ko maam jaara faa ma ko wax maa ko wax oto yi droit la di nga fi gis député bu wàcc toog ci suuf di jaay mais di nga fi gis député bu wàcc di jël taxi monsieur le ministre les Pikinois bu attendent sur tous les plaidoyers yi ñu tenir fii depuis le début ci manque d'infrastructure ci manque de tali ci manque de tout ce que tu veux nous sommes un département le vieux département ce département là qui a produit Pikine qui a produit Keur Massar manque de tout parce que Guédiawaye l'a vidé de son tout donc monsieur le ministre nous vous invitons dans le département de Pikine n'y allez pas sant nañ leen yéen ñëpp gërëm nañ leen mboolem ministre bu fi jaar ba ci président bi on vous remercie merci chers collègues pour trois minutes Ibrahima Baba Sall